man Jaksa laa juddoo. waaw hmm. nah, Jaksa laa juddoo mais buun laa yaroo. buun nga yaroo. waaw nah, sama carrière yëpp buun la buun kër kan Mbaye Fall. maanaam bi ngay dugg si buun yaa ngi nekk bu ndaw. waaw bi may dugg si buun maa ngi nàmp. ok ok kon boobu xale yi. boobu xale yi waaw boobu kon fii fii instant kenn waaw la. la la bi ko ñi sant bi. ok kon yow pire produit Boune nga. waaw Boune ngay représenté partout. ok euh, benn exemple damay ñëw rek ci mbër mi. waaw ah. damay ñëw ci mbër mi Mbaye Zoss le lutteur euh, Mbaye Zoss nekkoon mbër boo xam ne ñun ñu ko suivre ñun ñu ko xam wala boog man boog man personnellement man mi la suivre jàppoon naa ni Mbaye Zoss mën na am lu ne ci làmb bu dee bëre moo koy maye bu dee xarañ ci bëre bu dee coowu làmb maanaam bay

2005 2006. 2005 2006. waaw parce que dama judd ci koñu lama. ah oui. ñu ñëw fekk suñuy mag di bëre. Mhm. ñu foowee ko. kon bëre daf ñuy yomb. mag ji mooy kan ak kan. mag ji mooy suma mag bi Pape. Pape man. Pape mi kii sa grand bi sapeur bi. ok ok sa grand bi da daan bëre. waaw moom da daan bëre. ok ak euh, suma mag bi dem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm mu xamee Ndiaye Thiorin. Mouhamed Ndiaye Jordan man bu Kër Mbaye Fall. bu Kër Mbaye Fall maa moom ñoo bokk benn papa. oh ça je ne savais ma bokk benn papa. xam nga boo juddoo ci ñooñu fekk ñooñu di bëre. Mm-hmm. bëre da lay yomb au passage ak i mag Mbaye Guèye Siniha. Mbaye Guèye Siniha Alaaji Lawbe moo fi dugal làmb ci koñ bi. Mm-hmm. parce que ñun bu ñu xamee làmb moom la. non fii moom ay Mbaye Guèye Siniha tonnerre. Euh, Amadou Camara. yaa may dégg. non non waaye waaye waaye. ñoo ngi suivre quand même. waaw kon kon kon ñu làmb lañ dëgg quoi. parce que ay tonnerre bi Camara. Mm-hmm. ah ma koy nuyu. grand champion. grand grand bu grand champion Amadou ah, Camara. jàngal grand. waaw uh-huh. ah, junior moom mën naa su fekkee mën naa bëri ba ñëpp di ko coow. Mm-hmm. ci moom la. mbéy mi junior moom mën joué na ci lu bari. joué na lu bari bari bari parce que dama doon ànd ak moom làmb di toog ci cibu kaayam. Mm-hmm. mais su ma ko gisee mu def dara. Mm-hmm. damay topp ci parcours boobu noonu. Mm-hmm. lii dinaa ko mën. maanaam geste technique bu mu def. geste technique mu def après boo demee da nga koy répété ba mën ko da nga koy répété ba kon kon yow Mbaye Guèye Junior bokk na ci ñu la inspiré. mais nag làmb tamit don la jëlee ci man. parce que don la man sama mën a bëri moom xaw ma ko sax man. yàlla Allah, na moo ko def ci man rek ci loo daan bëree de gars ni kii moom li muy bëree la ko la la ci sax Père di ko ñaanal fi mu tëdd ko gënal fi mu Père di ko ñaanal yàlla ko yàlla yërëm te xare ci àjjana parce que dañ doon école ba mu ne ma yow mënoo tuddee sa bopp Boy Niang su ma Boy Niang ci moom laa njëkk déggee Boy Père man xam Boy fekk mu ne ma Boña génération la Boña bu Thiès. Mhm. papa yi Cheikh Niang. Mhm. mu ne ma yow su ma la mu ne ma su ma la gisee ngay bëre sama xel day dem ci Boña. ci moom sax parce que moom dafa doon ma ah, ah ah man mii daan nga ma yéemu man daan nga bëre ma yéemu. Hmm. waaw loolu moom mooy li ma la wax rek. Hmm. dañ koy delawaat ci yàlla rek parce que man sama mën a bëre xaw ma la la. mën naa ko trop nag trop trop trop parce que gis ma lu ma tëj ci làmb lu mu mbër di def ci làmb tëwul mhm. tànk bu ma neex dama mu tëj ci làmb lu ma neex dama koy def ci làmb kon loolu nag cant la mais yàlla mooy may. waaw jël bu rëy bu ne daan nga ko ci mbaa jël waaw jël bu rëy bu ne daan naa ko ci làmb. mais aussi dafa am koo tudd léegi léegi sama yaram daw muy euh, Jordan bu Kër Mbaye Fall. waaw mu xamee Ndiaye Jordan. kooku moom suma mag la mais sama complice la. kooku sama jóolawul. parce que mën ne sama carrière du ci joué lu bëri fumu ma mës taxaw di bëri fumu ma tourné gis ko sama xel day dal parce que musul bëgg sama ma arrière dafa nekkoon benn grand boo xam ne maanaam fit bi foo ko ak wees na su ma mës a nag hésité ci mbër sax daf may menacé moom bu ma mës a nag daf may yokk fi daf may menacé amul góob ku mën a taxaw sama kanam dinaa ma yàgg man dama dugg kër mbay faar keroog jëli sama benn booy mu ma grand ma ne ma naam ñëpp ku fi bëri moo tax. loolu am na parce que bi ñu nekkee période ma nekkee Kër Mbaye Fall moo ah. ci. booy topp ci. dernier combat am dans bu Pikine. après combat moo Cobra ci la feebaree. ci la ni muy làqoo. bu ni na bu ni muy génnee am na moo koy ñaanal yàlla yàlla yërëm. mais. aussi xëy na kooku noonu rek la mënoon demee ci moom parce que di nekk ak ñi sax mais doo ko xam. kooku am na ñoo xam ne foog ñu làqu nga leen di a xam benn nit la benn jëmm la woon benn jëmm la woon góor yàlla dëgg moo nekkoon la daal. ñëwaat xam nga nee naa la keroog nee naa la sama waxtaan ak yow xajul ci une heure de temps. Hmm. xajul ci deux mais nag affaire dañ koy dagg daggee rek xool ba xam nu ñu ko ciy xaj xajalee. Euh, mbër dañuy dellu si waat ci sa parcours bi ngay mbapat dangay toll fu sori di nga bala ngay gis jëmm ji pour wi ngay dégg man looloo ma dal ci yow man bala may gis sa jëmm dama dégg sa tur ay yoonu yoonu yoon par la suite ci laa la gis li ma daan dégg ma gisal ko sama bopp xam nga dafa yéene des fois nga dégg diw ak a mën a bëre diw ak a mën a bëre nga dem ba ba assister diw moom muy bëre nga gis ne gars yi li ñuy wax ndeke ils ont raison waa dafa mën li muy def mais est ce que yaa ngi fàttali sa premier combat premier premier année bi nga takkee ngeen dem bari ci mbapat yaa fatu waaw man ngi koy ñu bu ben gain bu duppul fi ni sun ko moo doon dëgg ay lamb ci mom la ñu ko takkee ngeen bu bari nomé la woon wala tournoi. non boobu nomé la. ok nomé la. ma ñew ben mbër bu tuddoon mo Kanji. mo Kanji mo Kanji laa bëri loolu. bu bëree ma daan ko. nga léegi nag tey xëy na lamb bu ñu ci dugg mën naa bëri lii rek mais du ñu woon ay mbër mais après comme daan naa ko jënd bu rëy coow bi commencé war ngaa mën a doon mbër affaire yi doon jàppal baal jàppal baal ci lañ commencé di fowle lamb di fowle lamb mais nag dawal lu yàgg man lamb ji sonalu ma mais doon naa ànd ak mbër yi su ma demoon entraînement ñaay ci mbër yi fa ne comme ay Seydou Diola. Seydou Diola. waaw champion bi noonu champion dama doon dem ci ñoom seen écrit. incha mhm. damay kontaan ak mbër yi fa ne. Mhm. mais dinaa bëri ba pare ay booyam mënuñu ma daal. ok dama doon woo mu ne ma yow booy ndax mbër nga lan moo la tere doon bëri. Seydou Diola mu ngi yoroon ñoom kii ñoom Badou Wele. waaw noonu la demee ñoom Badou. Mhm. mu ne ma lan moo la tere doon bëri affaire yooyu noonu. ma ne ko non non kii wu ma quoi dama bëri mu ne ma yow da ngaa mën a bëri affaire yooyu noonu. mais dama doon ànd ak gars yi entraînement loolu rek mm-hmm. mais après fur et à mesure nag mm-hmm. ñu dem ba benn instant lamb bi di direct mbër bi di la dugg petit à petit ah, affaire yi dem di gën a avancé di ko gën a jot aussi avancé mais mais nag mbay euh, xam nga tamit du ma ñëw seet si la ba fii li ma gëm ma bañ la koo wax mm. seen fii ay ndaanaan dañ ci waroon a génn waxuma la benn mbër bu téye lamb ji mais ay ndaanaan dañ ci waroon a génn mm. yow Thier Pamour yaa may dégg

waa SDE yi pour man. xëy na gox bi ñu dëkk moo dul goxu sport xamuñu sport. ah est-ce que la booy est-ce que la mbay est waaw loolu laa jàpp mais. yow yow développé na. dama part personnel man moom. Ah. ci man sama côté sama sama bopp nit ku ne. Ah. ci sa bopp nga mën a jugé. man ci sama bopp. yàlla moo ne nii lay demee ci man. Ah. parce que euh, damaa sotti te eggagu. man loolu laa jàpp te olof dafa ne cat bu rayul sembe. ah wax nga fi waxu mag nag. Ah. wax nga fi waxu mag. man loolu laa jàpp dafa te eggagum. parce que ñëpp dañ ma xaar te ñëwagum. bala nga te nag bàyyi bàyyi gars yi xamee fa nga jëm pour nga wala doo àgg. wala la demee. Ah, man loolu dafa compter suma carrière. Ah. parce que bëri woon naa coow boo xam ne man xaw xamoo lan la xaw ma lan la waaw loolu dafa dem ba dépassé la. dépassé ma maanaam sa tour dafa dem ba àgg foo xam ne. waaw yow tu comprends pas da ngay dégg mbay sos mbay sos mbay sos mu mel ni mbay sos roi des arènes na fekk mbay sos ci mbapat la toll. waaw fekk jëmm ji sax boo gisee da nga koy xeeb parce que dal na ma dalati ma. yenn saa yi da ngay dañ lay kenn da lay laajte ba gis la su la gisee. par rapport ak ni lay déggee ak par rapport ni lay déggee. bu gisee jëmm ji bu gisee jëmm ji da koy xaw a def. waaw parce que dal na ma Balla Gaye numéro 2 ma koy nuyu au passage sama grand la. te bi ñuy coow bi a na bari bari affaire yooyu noonu ñu bi ñu bi dëgg mën na ma yow seen école li ngay coowee lan la affaire yooyu noonu tax mais man dama dama a bëri mu ne ma ah, nii maa ngi yow naa ma laa ah, léegi damay jàpp suñu ñëw seen taw du ma ne ko kooku des na ci yow am ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dañuy dégg coow mu mas os meus bunyi magise ana na ben nan no sa papu si to li muy deg duwa ya ga duwa ni mas na ma dal tamit ci ben gain may dépanner sama mudo ma ben gain ñu tok ben jël di waxtan ci garage mécanicien bi waaye di expliquer ci man quoi te xamul li te xamul ne maa toog ñuy waxtaan waxtaan ba pare après mécanicien bi ne ko kii mooy mbaysal waaye ne non non kii du kii mooy dégg affaire ma ne ko man la sax mais jëmu jee bari ko rek affaire yooyu waaw mais nag yàlla mooy dogal quoi. yàlla mooy dogal loolu daal nga nu mën a expliqué.